bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man ihtada bi hadiyihim ila yawmi ddin mbokk yi ñuy seetaan fii ci Mourchid TV asalaamualeykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu sante yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci sunu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu sewaat ak yéen ci seen émission pencum diine gannaaw bi ñu leen nuyoo jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi ak képp koo xamee ne rek mu ngi safoo di seetaan seen télévision Mourchid TV rawatina seen émission bi ñuy ànd ak yéen eh, jamono bu jot muy pencum diine di ci bokk di waxtaane ak di fàttalinte lépp loo xamee ne mii dafa dellu ci pénc mi comme ni ko tur wi wuyoo waaye itam nag di fexe di ko dëppale ak li nga xamee ne mooy njàngale alquran ak njàngale sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni jamono bu jot itam miin ngeen ñu ci ànd ak sunu ay mbokk léeg-léeg ñu am sunu mbokk boroom xam-xam mu ñëw ñu bokk ak moom waxtaan ci tomb bi nga xamee ni moom lañu tànn ci loolu lañu amee tey fii koo xam ne gan la du gan waaw gan la ndax émission bi ñoo ko invité tey waaye itam du gan ci télévision bi waaye itam du gan ci pénc mi ndax miin nañu ko lool wax dëgg yàlla ci waxtaan yu am solo yoo xamee ne dina koy def ci pénc yi waaye itam rawatina fii ci television bi muy sunu mbokk boo xam muy al oustaz Serigne Babacar Diop kon oustaz ma jox la kàddu gi nga nuyoo ak mbokk yi ñu ñëw ci li ñu bëgg a waxtaane incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aleykum salaam بعد الصلاة والسلام على سيدنا alladi unsila alayhi ayatu albaladi al amin wasalaati ala ashaabihi alxurdi almayamin wa man ihtada bi hadihim wastanna bi sunnatihim wastarsada bi rushdihim ila yawmi ddin njaga ñu ngi lay nuyu di bég ci invitation bi di leen ci jaajëfal di jiital ci nuyoo bi borom kër gi ak ki nga xam ni moom lañu ñu dénk kër gi. Mm-hmm. ak ñi ko ci jàppale ñëpp. macha allah mm-hmm. di nuyu ñëpp ñuy seetaan Mourchid TV. Mm-hmm. rawatina ci émission bi ñuy invité tey jii. ñu fas ko yéene àndandoo ak yéen. incha di ñaan jal na ci yàlla def tawfiq. amiin yaa mu jur njariñ biñ ci séntu incha allah incha allah. jërëjëf euh, ñu lay dalal jàmm. ci émission bi euh, ni ma ko waxee léegi. Euh, mën nga si doon gan waaye doo si gan itam <laughs> bu ko defee mbokk yi ni ñu ko miinee ci sunu émission pencum diine wax dëgg yàlla jamono bu nekk euh, mbokk yi tamit di ko rafetlu mooy dafa am ay rubrique yu ñu ko wutal te yëpp nag dellu rek ci jàngat li ci penc mi rubrique yi bi ci jëkk dañ daan tudd li ñuy jàng lu ñuy wax xew-xew hmm. xew-xew nag bu ñu ko waxee rek baat wolof bi bari na lu ëmb na lépp mm-hmm. te mooy lépp loo xamee ne xew-xew la buy xew ci pénc mi mm-hmm. ñu xool xew-xew boobu mm-hmm. woo ci boroom xam-xam jàngat xew-xew bi am yi ci lu positif ñu génn ko nit ñi mën ko jariñoo waaye li nga xamee ni itam lu négatif la ci te mooy lu lu amul lu lu jariñ nit ñi la ñu fexee lu ñu ci mën a génn ñu génn ko it pour nit ñi moytu ko parce que tamit defe naa ne yàlla loolu la ñu sante mooy lu mu mënti doon na ngeen ko déglu waaye xool la cay jariñ ngeen jariñoo ko moo tax tey mbokk yi sunu rubrique bi jiitu muy rubrique xew-xew euh, dañ ciy ànd ak sunu mbokk Oustaz Sëñ Babacar liñ ci fas yéene waxtaane nag mbokk yi bu ñu xoolee jamono bii defe naa ne euh, buñ doon tudde xew-xew amul bu fi gën a màgg lii xew tey ci jamono rawatina si sunu réew muy li ñuy tuddee insécurité loolu Oustaz Babacar dina ñëw ci wax ñu incha allah lan lañ ci jublu te mooy gis nañ ne wax dëgg yàlla jamono la ñuy dund boo xam ne foo tollu ak foo déglu rek nit ñi li ñuy jooy benn la mooy dañ naan réew mi amatul sécurité moo xam sa kër la dañ naan amatu fa sécurité moo xam ci mbedd mi ngay dox la moo xam si oto yoo dugg la moo xam sax xew-xew yii am ñu koy organiser moo xam loolu si wàllu tàggat yaram la wala ci yeneen wàll dañuy gis ne foo ci dem rek baat bi benn la mooy sécurité amatul loolu nag defe naa Oustaz Babacar amul lu ko gën a grave sa jamono bu ñu demee ba nemmeeku lu mel noonu parce que defe naa àdduna moom pour que ñëpp mën a nekk ci li ñu bëgg nekk ci li neex yàlla foog assalaam day am moo foog jàmm am kon Oustaz Babacar mhm. woote borom xam-xam ñëwoon na fi. ñu mm-hmm. waxtaan ak moom ci mm-hmm. loolu ñuy tuddee adamul am na boobu. Mm-hmm. lan mooy asbaab yi. mu amoon yu am solo yu mu ci joxe. ñu gisoon ne. ci asbaab yooyu. def ci am wàll yoo xamee ne ci wàllu nit ki ci boppam la. am ci yoo xamee ne dafa dellu ci nit ki ci fameem am ci yoo xamee ne ci wàllu penc mi la dellu. tey nag oustaz li ñu bëgg waxtaan ak yow. Mm-hmm. mooy gannaaw bi ñu xamee ne loolu fee bi am na. Mm-hmm. mooy insécurité am na. lan la yaakaar ne mën nañ ko si am. Mm-hmm. mu doon si ay xulul maanaam ay ay saafara. ba jàmm mën a am. kon loolu mooy euh, li ñu bëgg a waxtaan léegi nag bala ma siy dugg ci tomb yi dama bëgg bàyyi la. ci loolu ñu def mu xaddima ban euh, mu laaxasa nga ci mën a joxe. waaw jërëjëf Ndiaga euh, tomb bu am solo la boo xam ni. ci wàllu dund bi amul lu ko mën a remplacer. Mhm. sécurité moom. Mhm. bu fa jógee leneen mënu koo remplacer lu sécurité rek. waaw ah, dëgg euh, ndax sécurité dafa nekk soxla ñi gëm diine. Mhm. nekk soxla képp kuy nit. même boo gëmul diine. looloo tax nga gis même yonent yi bu leen yàlla yónnee. dañu naan ah yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ñu sécurité de. Hmm. dal gu nu mën a jàllalee sa mission. ndax bu dal amul. Hmm. mission bi du jàll. du hmm. moo tax nga gis suñu maam Ibrahim. ca ñaanam ga. muy wax ni. rabbi ij'al haadha al balada aminan. waaw yàlla maa ngi lay ñaan. réew mii nga ma yónni. na am dal. ñu mu ni mu ni parce que ca dal ga itam mhm. bokk na ci mhm. ñu am lu ñu jàpp ba tal seen bopp mhm. waaw loolu xam naa xëy na dinañ ci ñëw si waaw parce que loolu <laughs> loolu moom xal la la <laughs> waaw mu goog <laughs> mu wone itam waaw penc société bi boo xam ni dafa amoonu dal sàggane ko ba ñàkk ko lan moo leen ca fekk te mooy yàlla nee na yonent bi maa ngi lay nettali benn dëkk boo xam ni mhm. dafa amoon sécurité mhm. kaanat aminatan musma inna mhm. am équilibre wërsëg di ko jóge fu ne parce que dëkk bu amee sécurité ak am équilibre ku jóg rek fa ngay xalaat a dem dëgg la am looy investir rek fa ngay xalaat mu ni dëkk booba nag dem ba mujj ñu yaakaar ne am na lu gën li ñu nekkee te sécurité bi ak dal bi ñu ñu di ko jéem a dompat te mooy ñu teggi yoon wa ñu jaaroon ba yàlla may leen ko yàlla ni leen ah kon dafa am lu ngeen bëgg a mos te insécurité kaay leen mos ko moo tax ba leen ko yàlla indilee ndool la leen indil ak kenn wóolootul sa bopp kenn wóolootul sax sa bopp bay wóolu sa morom mujj nag dëkk ba mel na boo fa jaaree xanaa du dëkk bi nga xamoon moo tax kon insécurité fu mu am ndóol ak dawante moo fay am moo fay am waaw yonent bi sallallahu alayhi wa tënk sécurité bi bi yore dëkk mu tënk ko ci tomb mhm. yu gàtt mu ni Mm-hmm. képp koo xam ni man asbaha minkum aminan fi sirbihi mm-hmm. muaafan fi jasadihi mm-hmm. wa indahu quutu yawmihi fa ka annama xuyizat lahu dunia bi adafiriha est-ce que yonent bi nee na képp koo xam ni am nga sécurité sanitaire am sécurité social. Mhm. mooy boo feebaree. boo feebaree mën a mën a faju mhm. nga am sécurité sociale. Mhm. boo waree dund boo waree dund. kenn du la xatal loo bëgg a dund nga dund ko te kenn du la fa xatal. nga am sécurité alimentaire. alimentaire. doo jëgaani fenn. kenn du la xëlëmtoo. nee na kon yow daal dafay mel na. addina bi yëpp teg nañ ko ci sa loxo. xoolal ñetti façon sécurité waaw nga par rapport nag ak li ngay laaj mhm. ñu natt ko ba xam ñett yooyu ñun nan lañ ci def ñun macha allah oustaz Baba oustaz euh, sa muqaddima bi am na solo mhm. parce que d'abord wane nga ne mhm. lépp lu mu mën a doon ba ci sax sa jaamu yàlla jullit amul euh, sécurité sa jaamu yàlla du normal du dem te loolu mooy li am ni ko waxee itam wér gu yaram kazalika sa dundu kazalik kon daal mën nañu wax ne àdduna bi si boppam wala dund jullit doomu aadama si boppam pour que mu mën a dund dund goo xamee ne dina nekk dund gu teey foog dafay am lu ñëw tudde al am na macha allah léegi nag oustaz kon wax nga ñu ne solo bi nga xamee ne moom la sécurité am ci dund jaam bi te noonu mu ko amee ci dund kenn ki noonu lay wala ngaa ne si penc mi parce que penc mi bu amul sécurité du sotti du sotti kon fépp fu mu mën a doon rek sécurité bi dafay am solo. waaw léegi nag oustaz comme boobu solo la am te ñu gis ne actuellement nii nag sunu réew dañuy jooytu ne daf fay ñàkk. Hmm. kon est-ce que duñ ci wut ay solu ay ay ay ay waaw léegi solution yooyu nag lañuy bëgg a waxtaan oustaz ñu yaakaar ne ci solution yi. Hmm. li ci jiitu mooy wall ci niveau famille bi. Hmm. lan moo ciy taxawaayu famille bi pour que sécurité boobu mën a am mën a jóg. waaw laaj nga tomb bu am solo boo xam ni. bu ñu fa résoudre problème bi rek. Mhm. jaratul ñuy jàll ci beneen. ci beneen. Mhm. parce que famille. Mhm. mi ngi tàmbalee ci ñaar suñu aadama ak awa. fa tàmbalee. moo tax gis nga la xewoon ca famille ba. ba mu ca xewee. muy siisante am. fiirante am. ba faat bakkan am ca. ca la doomu aadama commencé ñàkk jàmm ba tey ji. ca kër ga tase. waaw mm-hmm. ah, mooy. Uh, siisante siisante. fiirante fiirante. ñàkk yéenente ñàkk yéenente jàmm. faat bakkan. faat bakkan ah parce que. mu ngoog mooy andi ba mooy moo yóbbu. moo koy indi ba faat bakkan. moo koy indi. moo koy indi ba mu faat jox na ko lu mu la joxul. moo xam moralement la. Mm-hmm. walla wàllu matériel la walla lan la. Mm-hmm. nga ni du fi amee. loolu nag ñu ngi koy réglé ci euh, famille li tax yàlla indi ko xam na ko mhm. parce que yàlla mënoon na bañ indi ay jëkkër ak jabar ak mhm. aadama te ku ne mu bind la nga dajeeg sa moroom ci pénc bi mhm. waaye bu boobaa yërëmante du am wegante du am xamante ak ki morom kenn kenn du am moo tax mu jaarele sosu gi ci famille l'islam nag ñëw wone ni famille bi yàlla bëgg moo koy tabaxal boppam ñu ni ko nan la koy tabaxale boppam mu ni doo tànn ku la neex yàllaay lay wax ni hmm. tànn sa bu la neex yaa ngi nii de waaye bi ma gënal man yàlla nag pour hmm. sa famille hmm, tege ci mën a mën a jub mën a tege ci lu baax mooy nga tànnee nii te mooy booy tànn diggante ñaari woy dencante nañu tànnante ci diine ak ci jikko kon foofu la booy xool dafa mel ni kon. biir mi yar bi foofu la jëkk a tàmbale foofu la ca tànn ba la tàmbale. tàmbale bari na famille yoo xam ne mënul jub. Mm-hmm. parce que ñaar ña. Mm-hmm. intérêt taxoon ñu bëggante nii rek. koom-koom wala famille bu rëy walla tur. Mm-hmm. wala nangam. bu ñu demee ba ca biir nag ba lool a jeex. dootuñu mën a yar seen doom lu dul ca ñoom. pas-pas ba ñu amoon bay tak ba ba ñu takkante. macha bu ko defee aada dugg. fii yama waxoon yépp ci sànq mm-hmm. daal di dugg si waat ci biir famille mm-hmm. waaye bu fekkente ni dañu ni yàlla moo moo daganal sëy mm-hmm. ndax bëgg ab famille bañ a réer xam fi ñu bokk ñu man ni kii diwa ko jur tey bu ñu ne kii diwa ko jur mu nekk loo xam ni dañuy mën a wax ni jom jaa nga fa ngor ga ma nga fa jikko ba ma nga fa loolu la yàlla wax ni nañ ci takkantee sëy loolu mooy nawlonte waaye du alal ju bareek mhm. fii la bokkeek nangam ak yooyu bu ñu mhm. ko takkante sëy buñ demee ba ci biir mhm. ña fay juddoo li xew ci penc mi yëpp li ci gën a bari ñi juddoo ci famille yu mel noonu ñoo ko waral kon daal foofu oustaz da ngay feeñal ne waaw kon dafa mel ni waaw ñàkk yaru ñàkk jikko bokk na ci yii sabab waaw nit ñi di di àgg ci di di di di amee taxawaay yuy créer insécurité ci kaw ci dëkk bi par exemple comme li xew ñu naan agresseurs yi mhm. euh, xeetu sàcc loolu yi bokk na ci sabab yi ni nga ko waxee mooy ñàkk am yar bu ñu jëlee mhm. ca famille ba ca famille ba waaw loolu la parce que mhm. euh, dañu wax di sa doom da koy yar ñeen fukki at balaa judd kooku kon mooy tàmbaleel ci yow jëkkër ji ak ci jabar ji ba ngeen am ñeen fukki at fekk yéen doom ju judd bu melee na yéen mhm. société bi dina ko soxla kon bu doom ba juddoo nag mhm. xam nga Seydina Omar def cee am lu wax lu am solo dafa am benn waay bu ñëw ni ko man sama doom daf ma mooy te comme yaay amirul muminin mhm. aqi ku mooy sa ndigalu way jur ndax amul aq mu ni ko ah mu ni ko musu mënuma koo wax lu mu lu mu def mënuma koo tere lu mu bàyyi tëna mu woolu doom ja ba doom ji ñëw mhm. mu ni ko sa baay bi na wax li mu waxa li mu waxaatoon nga dégg ko baay bi jaar fa mu jaaroon mhm. doom ja ni Omar wax nga dëgg de wax na dëgg de mais dama lay laaj yow itam ndax doom itam daa amul àq ci way juram mu ni ko ah kay mu ni ko yan àq la mu ni ko d'abord na ko tànnal ndey ju baax mhm. kon mu dellu si ci liñ doon wax waaw ñaareel bi na ko tudde tur woo xam ni bu xàmmee fekk fa tur wa mhm. da koy motiver ndax tur wu baax la baax la waaw mhm. mu ni ko ñetteel bi mu matee jàng mhm. ak yar ko na ko jàngal yar ko xale bi ni ko laaj ko ndax yooyu nga wax yépp defal na ma ci benn mu ni ko loo bëgg a wax mu ni ko parce que ki mu takk muy sama yaay moo yées ca koñ ba mu dëkkoon ñëpp dañ ko faa bàyyi woon moom mu dem takk ko beneen bi laaj ko ban tur la ma tudde mooy turu gunóor buy bérëng ay salte jox beneen bi laaj ko ndax jàngal na ma benn araf ci alquran mi ngi ni Seydina Omar xool baay bi ni ko waaw li mu wax nag baay bi sëgg mu ni doom ji demal yow yow yow demagoo yow yow baay bi yaa fi des kon mhm. bu fekkoonte ni famille yi bàyyi mhm. nañu xel yooyu mhm. jaar foofa ak seen njaboot la ca des dañu naan yàlla rek la kon ku ca mel ne neen ñu ne ah yàlla nag moom. Ah, waaye sunnaam waaye def na li ñu war waaye bi moom def na li mu war a def ci njaboot gi. macha allah waaw oustaz dafa mel ni mm-hmm. euh, résumé nga mm-hmm. rôle lu famille. Mm-hmm. ci yar lii tax ñi seen jukko yàqu ba ñuy créer insécurité ah. li siy rôle famille wax nga ko uh-huh. d' abord mooy wane ne koo gis muy def ñaaw lu ñaaw ci mbedd rek si kër la bàyyi ko si kër la bàyyi ko Mhm. kon fa mu bàyyi ko mhm. foofu lañ ko waroon foofu lañ waroon jë la waroon jëkke lañ ko waroon jëkk encadré mooy li nga mooy yi nga wax sànq mooy d'abord mhm. boo xool dugal nga euh, riqaaba si biir dugal nga tawiya si biir dugal nga tarbiya si biir yëpp mu ngi si biir mu ngi si biir mooy famille bi ñoo war a d'abord tànnante bu yàlla dogalee doom judd si ñu mën koo yar ci jikko ji ñu tànnante woon ñoom ba yi nga xamee ne mooy ak xam ñu mën koo matale mais surtout yi nga wax sànq ci doom ji wax na bàyyi sama Omar ne ko laaj kon ndax defal na ma ko mais surtout ci jàngal ko ak yar ko ak yar ko kon defe naa loolu oustaz wane na ne mhm. kon famille yi mhm. bokk na ci li ñu leen di xaare mhm. mooy ñu xam ne ku génn ci mbedd mi la ci famille la bàyyi ko kon famille nañu joué waat seen rôle suñ Babacar boo jàppee dañu war a joué waat seen rôle ci yar encadré ok ak itam orienté seen i njaboot boo amul dara loo si dolli ñu dugg ci taxawaay bi ñuy xaar ci mujtama bi waaw dolli bi de moom mooy rek. Mm-hmm. Euh, doom ndénkaan la. Mm-hmm. Euh, suñ maam borom Touba. Mm-hmm. góor googale. dafa wax ni man baa anuuran bi du jaafa a yandam maanaam doom leer la bu la yàlla jox. boo fexee nag ba remplacer ko lëmbal lëndëm. jënde ko lëndëm. bu ëllëgee bu société bi jooy yaa cay jiitu. parce que doom bu jubee ñëpp ni sunu doom la waaye bu dëngee ñu ni doomu diw la de ah, gis nga ko loolu wolof wax na ko te muy ah. la dëgg ah kon nag fexe ba mhm. sa doom nekk sa sak boo duggee ci bàmmeel mhm. sa gannaaw ndeysaan nga def ca loo man mhm. loolu dara mënu koo remplacer macha allah waaw am na solo kon oustaz ba tey dañuy wéy ci wut gu ñuy wut xulul yi ci agression yeeg xeetu mbon mbon yi xew te ay nit rek ñoo koy def nag mala yi defuñu ko ñeneen ñi defuñu ko ah. nit ñi daal ñoo koy defante mm-hmm. léegi nag oustaz dañu jàpp ne itam mm-hmm. penc mi ñuy dund mm-hmm. am na si responsabilité waaw parce que tamit ñii def ñaaw yi ni ma ko waxee léegi ñu ngi ci biir penc mi di dund di jaxasoo ak nit ñi mën naa am sa nit ñi di leen xam mais xam nañ it ne ñii ñooy def ñaaw yi mais foofu tamit oustaz ban ban ban rôle nga yaakaar ni tamit penc mi société bi war na ko si mën a jouer ci lu saafara waaw xam nga penc mi bokk-bokk loola. waaw ah. ay famille yi doon tudd léegi famille yi ñooy constituer penc. penc mhm. bu ñu fa dajee. Mhm. kii famille sangam lañu ñii famille sàngam lañu. kii mhm. doomi diw ilaa xiddi daal. mais ñooñu nag mbokkoo gañu doon wax ca biir famille ba. Ah. jàppalante gañ doon wax ca biir fami ba mu am ndey am baay am mag am rakk am sœur am mhm. nangam ñuy jàppan jàppalante loxo di defante mhm. mais fa penc mu mag mi mhm. foofu la gën a jaadoo sax gën moo tax bu boo ma nee sama mbokk nga mbokk gi du yem ci làmmiñ parce que bari na koy agressé ji wala muy defin tooxi doona wala nangam dañ koo seetaan waaw buñ jàppoon ci loxoom xam nga mm. naa Omar am na at moo xam ne at uh, amul majaa mm-hmm. xiif dafa am kenn amul loo lekk mm-hmm. mu ni sanction bi ñu waroon a teg ku mm. sàcc ren ren mm-hmm. bu ko ko kenn teg ñu ni ko lu tax mu ni parce que am na koo xam ni sàcc na ren fekk du jikkoom sauvé ba kanam a tax mu sàcc hmm? mais kon penc mi buñ jàppalantee ba gis ni kii mm. suñ ko jàppalewul mhm. jikkoom mën na ñaaw ñaaw jikkoom mën na nangam mhm. mais ñoom seen responsabilité la ci ñu jàppale ko jàppale ko mhm. xam nga loolu lu mel noonu am na ku ko fi doon wax masala bu fi siiwoon ci fan yi ki naan jigéen bu yoree njaboot te amul lu mu leen dundal mën na njaaloo ñu fay ko mu ñëw dundale njabootam loolu wax mënu koo gën a nekk erreur erreur wax dëgg yàlla bay jigéen jay dem bay njaaloo pour ñu fay ko mhm. mu ñëw dundale njabootam mhm. penc ba mu ko doon defe ah. balaa kookaa ñëw yàlla dana leen ñu nga ma nga leen di duma ah. Ah. parce que ku am lu ëpp sab reer sab reer wallaay yonent bi nee na kenn nekk ci sawet wet nga yëg ni fanaanewul reer waaw yow sa ngëm yàlla dañ koy seetaat mais loolu yàlla aju ko ci ndax kooku jullit la wala déet nit ku dend ak yow même bu dul nga ëpple ko nga reer nga yëg ni moom amul lu mu reere yow nga raay sa biir rek dem tëdd yaakaar ni noonu la yombe ci yàlla yàlla ni wàññi naa ci sa ngëm mhm. reer boobee nga ko xañ mhm. te loolu nga koy xañ noonu mooy dem bokk na ci indi adam adamul am ni si penc adamul am ni parce que bu nga benn ah. très bien mhm. parce que benn dootu la la nga amoon ah, bu fekkee du borom yar bu ma sëkk ah. dafay yéene pour nga ñàkk ba mel na moom ñaareel bi bu gisee lu jëm si ci yow di la lor da koy xajal waaw ñetteel bi bu melee bu santee njaay bu la jekkoo dana la ko def dana la ko def mu ngoog ah parce que danaa dañuy dund man ma ma bàyyi ma man bàyyi ma mu ngoog léegi li solo boobu moo tax yàlla mm-hmm. yàlla ku xereñ la mm-hmm. dafa indi wàllu dépense ci pénc mi mm-hmm. am ci bu mu farataal boo xam ni yow boo gëmee yàlla sañoo koo bàyyi te muy asaka mhm. te asaka yi ne ci àddina bi rek mhm. asaka yi jullit ñi war a génne ci àddina bi ñetteelu xaaju àddina bi mën na koo régler <laughs> maa la ko wax ah problème ñetteelu xaaju àddina bi mhm. asaka yooyu mën na ko régler hmm. te boo ko deful mu duma la mu des yeneen yi nga xam ne nag nee na ma la ko mais ay boo ko defee ma jël yooyu ken xamul fu mu yem kon li ñu farataal ak def li yàlla farataalul te moo ko gënal sax la mu farataal mhm. bu ko nit ñi doon def mhm. kuy ndóol bay agressé ji doo ko gis doo gis wala ngay sàcc waaw mhm. yàlla li mu indi ci ay source ay yu a dundal nit ñi xajul ci àddina bi mais séddale yin aawa bu aawa bu aawa bu maandu la amul waxin la ah <laughs> te mooy nit. jërëjëf hmm? séddaliin bu jaar tilka idan qismatun diisa. diisa wallaay ndeysaan bu jaarul yoon a fi ne. mais addina bi li fi nekk ci alal kenn kuy agressé ji ndax amul lu mu lekk. Hmm. waratu fi woon a nekk. macha allah oustaz dugg nga si lu ama am solo. ci feeñal taxawaayu penc mi. Hmm. ci euh, lii saafara. yi ñuy tudd ci ay insécurité. ak yi muy jur. te li nga wax ne. uxuwa saadiqa bi waroon bi war a am ma ngoog dafa des dafa des parce que uxuwa saadiqa bi mooy jur taawun bi nga wax sànq mm-hmm. mooy ñu war ñu war di jàppalante te li nga wax bu ñu gisee koo xam ne kii mm-hmm. situation bi mu nekkee mm-hmm. mën na ko pousser ci mu def defi safaan ñu buñ ko buñ ko taxawee mën na am loolu taxawu ba tax du dem ci du àgg foofu du àgg foofu mais dañuy seetaanante kon defe naa loolu day wane ne penc jéewul loolam mhm. bi mu waroon a joué mhm. te mooy léegi dafa mel ni kenn ku nekk da naan ma sama bopp rek te loolu tamit li muy jur <laughs> mooy fitna boo xam ne bu ah. dañu seetaan loo xam ne bu juree fitna ah. fitna bu du yem si bopp borom du yem ci bopp borom moo yem ah. parce que euh, li tax ñu indi beneen tomb mhm. boo xam ne dafa dugg ci mbokkoo googu ñu doon wax mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni unsur axaaka zaliman wa mazluman loolu mooy atamaanoo mooy nit ñi léegi dañuy gis ku jëm fu bonul foo xam ne ba fu bon la def leen ndànk de waaw maanaam pour nañu nañu ko yeeru ba mu daanu ci kàmm ah waaw fekk tamaano mi ngi fi tamaano yonent bi dafa ne sa mbokk te bu muy wax axaaka kat waxul mbokkum jullit rek képp kuy doom aadama te xatalu la ci sa diine sa mbokk la boo ko gisee ñu buñ ko tooñee taxawal ci wetam ba mu jot àqam bu tooñee taxawal ci wetam ba mu bàyyi tooñ soo ko deful tooñante bi di wéy ñi wa faj tooñante bi xam nga fi mu ne maa ngi gis fan yi lu doy waar boo seetee réseaux sociaux yi da nit ku sàcc ñoom buñ ko jàppee dañu lay dañu lay yan la nga sàccoon bu dee ay xar la lu bari bari dañ koy takk ci buum wékk la ko ci baat ak ci say mbagg ngay dem ba ca pénc ma hmm. ma gis ko ñu futti waa ji ba na ko ndeyam juree woon tubéy sax solu ko bañ paree ca loolo nag ñu soog a boole tànk yi ak loxo ji yeew ko wékk ko muy langaan ñu dooxe ko gannaaw nag di ko dóor loolu oustaz est-ce que yaakaar nga ne yaakaar nga a nekk xal la. <laughs> loolu moom laa foofu laa jëm si. waaw gis nga nit. Mm-hmm. fii mi ngi yore xelum nit. Mm-hmm. am na nuñ ko mën a nuñ ko mën a faje mm-hmm. nuñu ko mën a euh, conseiller. ba loola dootu ko def ba abadan. te duñ ko toroxal. duñ ko toroxal surtout. parce que kooku. penc ma ñëpp di ko seetaan. toroxtaange ga ñoom dañoo xamul ni du yem ca moom famille ba mu bokkal yëpp ba ba addinay tukki dañuy continuer di torox ah, doom ju mu am day continé di torox hmm. bàyyi yaag ndey yaag sët ya dootuñ ko fàtte ba abadan mais kooku buñ ko jàppoon hmm. moom reyul nit buñ ko jàppoon yóbbu ko ci ruq ne ko lii nga def lu tax nga def ko hmm. yow kilifa nga te ay mag yi jëmm lañu kilifa lii lu la ci xiir bu ñu waxtaaneek moom dana wax li ko ci xiir mm-hmm. mais la ko ci xiir mën nañoo jaar neneen ba fajal ko ko mm-hmm. xamal ko nag ni ko dañ lay suturaal mm-hmm. ndax lii du sa jikko du sa jikko mu lii yellu li tam mu ci fi nga bokk fi nga bokk yellu fi yellu fi mu ngoog dana la avertir ñetti yoon yàlla sax nee na uh-huh. allazina amanu summa kafaru ah. garaawagul <laughs> ah, summa amanu summa kafaru ak garaawagul ah. waaye nag summa daadoo kufran mm, ah bu boobaa nag ah. sanction bu sévère day am mais am na koo xam ne bala ngaa jaar ñoom ci ñett yooyu mu nekk nit dëgg la waaw te yàlla mi am sañ-sañ. am kattan am sañ-sañ. nee na sabaxat rahmati. Euh, rahmati xada bi. <laughs> waaw sama yërmande jiitu moo tax ba léegi seeyu leen. wallaay dëgg su ma jiitalul woon sama yërmande. <laughs> law yu aaxisullaahu naasa bi zulmihi. wallaay maa taraka alayha min daab bu doon ku ma ni ndong man la ndong sa. <laughs> yàlla nee na kon kenn desatu fi. wallaay dëgg la. kon xool leen ci loolu yéen it nit ki mm-hmm. bala nga koo toroxal mm-hmm. jaaral ci moom moralité bi ba pare moralité dëgg bu tëyee nga jaaraat ci moom bu tëyee nag nga mm-hmm. xam ne kii nag moo toroxal boppam te ñu xool bu fekk euh, bu fekkee dafa laaj ñu taxawu ko itam mu ngoog ñu taxawu bu laajee ñu taxawu ko te taxawu wuñ ko lu ñu ko def war nañ leen ko def war nañ ko dëgg la waaw macha allah moo taxoon Seydina Omar wax ko ni. ñii ñuy ren ñu jàpp leen ndax ni dañoo sàcc. lu ñu leen def borom alal yi tëj seen alal yi lañ ko war a def. kon daal oustaz si hmm. ni nga waxee hmm. wane na ne penc mi pour que ñu mën am solution waaw mooy d' abord uxuwa saadixa na am waaw nañu hmm. nañu nañu nangoo nekk bokk bokk te itam ñu jàppalante waaw ba du gis kenn kuy nekk ci jafe-jafe parce que jafe-jafe xam nga kaadal faqar an yakuna kufran aduwan waaw ah. parce que tamit nit ku war a lekk war am lu mu faje soxlaam amu ko war am lu mu fajoo lox nga ko sànq. ci ñàkk am am amul sécurité mhm. sanitaire. Mhm. amul sécurité sociale. Ah. amul sécurité alimentaire. wax dëgg yàlla kooku loolu mën na ko pousser. waaw ci mu def jëfi rab. Mhm. te yooyu kon bokk na ci yi sabab tey yi am. kon nag penc mi waaw nañ xam ne loolu li ñuy xaare penc mi. ci la bokk. mooy li nga wax rek xam nga. lu ñu naan dénoncé ñiy def lu ñaaw. waaw waaw voilà xam nga dénoncé ñiy def lu ñaaw. Ah. jàpp nañ ne ah. mën na nekk solution ci penc mi. Ah. mais dénoncé bi man dama jàpp ni bi ci ëpp efficace mooy bi nga wax sànq. waaw mooy ñu xool lan moo ko poussé ci muy def lu ñaaw. waaw kay foog ñu xool ñu xam yow ma xool lan moo ko si poussé. lan parce que nit euh, Seydina Omar dafa am benn as ab jigéen bu ñëw daal di wax euh, li mu def biig wane wax carrément amu ci benn benn kersa mhm. wane ni moom dafa njaaloo biig léegi Seydina Omar dal ni kii wane na boppam nañ ko sanctionné mhm. Seydina Ali ni ko teeyal nañ ko laaj ba xam ndax aaya yi wàcc di araamal njaaloo moom déggagum na ko wala déet ah, <laughs> ba ñu mm-hmm. ko xëccee ba fële ne ko waaw yow de li nga wax dafa garaaw lool. Mm-hmm. parce que yow dañ laa war a sanctionné waaye xanaa xamuloo ni njaaloo ca jaahiliya nañ ko daganale woon lislaam bi mu ñëwee léegi araamal na ko. Mm-hmm. yàlla wax na nangam ak nangam mu ne a ah, loolu de mosuma koo dégg. mu ni Seydina Omar voilà kii boo ko sanctionné woon tooñ ko. nit ki bala nga koo sanctionné da nga koy dégtal. da koy dégtal dëgg la. dégtal nag ñaar la. kaddu. wala. problème bi ba tax mu def lii mhm. nga man koo faj loolu ci dégtal la mhm. boo ko fajee mu të mhm. nga faj mu të nga wax mu të nga wax mu nga xam ni kii nag daa tànn loolu ah bu boobaa nag yàlla du se yàlla moo gën a yërëm ñépp nag waaye nee na bu àggee foofa defal leen ma ko nii waaw te defal leen ma ko nii bi dénoncé moo ci jëkk yàlla bañul ko dénoncé de bañu ko mais kañuy dénoncé day fekk mu jar ko loolu tax sax nga dégg ñu ni yàlla ba ba ba ñu ne diw dafa def nangam ñu sanctionné ko. Mhm. Seydina Omar ni déedéet. Mhm. kon njëkku waa ñëw ni ko tey la ko njëkk a def yaay ja. Mhm. mu ni ko njëkku koo def tey. mu ni ko tey la ko njëkk def mu ni ko déedéet yàlla du doxale noonu. bu ko njëkkoon a def tey. yàlla dina ko suturaal dina ko suturaal. bu ko ñaareelee mu xaw ko suturaal. boo ko ñetteelee nag mu xaaw yi sutura moom moo xaaw yi boppam. mu xaaw yi boppam mu ngoog kon nit ki bala nga koo dëkkal fenn. xoolal li ko dal. li tax mu def lii kon mu def ko. Mm-hmm. mais nii ñuy doxale nii ak prison yi nii mu mel ku ko gis. Mm-hmm. te ngay gis ne am na koo xam ne bu génnee delluwaat foofa sax moo koy. moo koy gën a waaw parce que kersa amatu ko. dëgg la moral ba damm na. Mm-hmm. nekkatul nit ku ku ni cocc. Euh, euh, yàq nañ ko ba pare. dëgg la moom tey dee sax koo xam ne dee sax moo ko gënaloon tey. te sax dana ah. day day dem ba def si boppam ne. waaw dund si penc moo xam ne nii. waaw tekkuma fa aw ma fa benn njariñ. aw ma fa benn dara mu ko. kon man man may def lu ba pare ñu toroxal ma ba sama der siiw na na ba pare. kon kon kay. ah continuer si li ma nekkoon naa ci continuer. di dem si li ñaaw li ma doon dem ma doon yi ma doon def. Mhm. moom la maam Cheikh na Tidiane Al Maktoum mhm. loo xam ni benn ku ko ca def dem safara. Mhm. ci niñ koy waxee. nit def ci fukk yow nga ñëw di waaraate ku def nangam dana dugg naari jahannama xaalidina fiiha abadan waa ji ni waaw comme man ku ko def rek la man def naa ci fukk. kon naa continuer ah, kon naa continuer <laughs> ah. bàyyi ndeysaan ah. dem si yàlla si balaa jëm saako yàlla na ko ah. yàlla yokk leer. su ma sa nettali benn xista ne. Mhm. dafa benn waay bu ñëw ci benn sëriñ. Eh, ne ko man de. dama nekkoon di def safaan rek lu ñaaw rek laa daan def maanaam daal faat bakken daal moo doon sama vice <laughs> daanaka faat naa si lu xaw a tollook euh, juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent <laughs> toog naa ba léegi daal sama xel daf maa yedd ma bëgg daal tuub ma ne woon nag naa la ñëw laaj leen ndax bu ma tuubee sama boroom dina ma jéggal nee na sëriñ bi xool ko ne ko tuub yow tuub goo war a tuub bu la sa borom di jéggal gisatuma ko gisuma luy dox sa diggante dem safara mu ne ah comme da dem rek kon xaaral ma àggali sama liggéey boog ko amoon naa hmm. juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent xaaral ma mottali la téeméer bi ah fu mu koy mottali si sëriñ boobu ko wax loolu laa ilaha illallah nee na mu toogaat ab diir mm-hmm. bëgg-bëgg bi dabaat ko mu seetiwaat beneen sëriñ waxaat ko lu ni mel nee na sëriñ ba ne ko su fekkee ne day da nga fas yéene tuub te mu dëggu ci yow réccu li passé te fas yéene dootoo ci dellu sa borom di nga xam ne fekk nga fa borom boo xam ne xafurun rahim xafurun rahim mm-hmm. mu ne kon nag alhamdulilah bàyyi saaxo nag teg ci benn laaj ne ndax sëriñ bu mujj bi waaw dafa dàq jàng sëriñ bu njëkk bi wala dafa ko gën a ragal dee <laughs> jar naa laaj na laaj <laughs> waaye daal mooy li nga wax rek mm-hmm, mm-hmm. Uh, nit daal uh, bala ñu koy àgg ak moom fenn fi nañu jaar ak moom fi ñu ah, war a ah. jaar moom ba pare gis nga njaga famille bu warul bu jaarul fa mu war a jaar ak société ak ki njabootam. ak njabootam. Mhm. lu njaboot ga def ëllëg bu mu ko xas. ko xas. Mhm. société bu jaarul fa ak say penc maanaam état laay wax. société état dinañ ñëw mooy point jeex na moo kon kon dina ñëw. waaw kon baax na kon ñu <laughs> xaar ba mu ñëw rek. mu ngoog waaw kay jërëjëf mu ngoog waaw. kon. Mm-hmm. Mm-hmm. daanaka am nañu ñaari eh, tomb yoo am am solo. Mm-hmm. ci taxawaay bi ñuy xaaree famille. ak taxawaay bi ñuy xaaree penc mi. léegi nag oustaz li ñu dese ci waxtu li ñu ko bëgg a waxtaanee. mooy penc mi tamit dafa am lu ko coiffé. waaw. mooy li ñu tuddee ak dawla mooy état. waaw état mhm. tamit dañu jàpp ne kenn ëpp leen responsabilité. Mhm. ci insécurité bu amee ci dëkk. état dañu jàpp ne amul ku ko ëpp responsabilité. Mhm. ci taxaw pour que loolu ñu am ci ay saafara. oustaz lan la ñu war a mën a xaar ci ci ci état. xam nga buñ la doon laaj ni la lan moo tax pouvoir maanaam ab état am. ñu tabax état. lu tax ñu di ko def te ba ñu mënoon a bàyyi nit ñi noonu rek. ku nekk ku nekk. Mhm. neel benn baat dong la mooy sécurité. sécurité waaw waaw mhm. baatu sécurité boobu boo ko mhm. yaatalee. da gis ni fu ne moo fa dugg. moo dugg dëggal. loolu moo tax suñu borom bi subhanahu wa taala wax ni. walaw laa daf'u llaahi naasa ba'dahum bi ba'din la hudimat la hudimat sawaamihu wa biyahu wa salawaatun wa masaajidu yuzkaru fiihaa ismuhu kasiiran nee na bu fekkoonte ne état bu mat bu yor défense bu mat kattan gu mat hmm? ba nit ñi ragal ni bu ma defee diw nangam dana am lu dal ci sama kaw nee na bu amul woon jàkka dootu taxaw église dootu taxaw mhm. bi aw yahudi fépp fu ñuy jaamu yàlla mhm. dootu taxaw waxuma la sax dootu taxaw mhm. waaye maam Cheikh na Tidiane almaktum nee na kon da gis laa ilaha illa allaahu bu tër la ilaha illa allah rendi ko ci pénc romb ko dem kon rôlu état ba léegi dafa bari ci surtout ci maanaam rawatina suñu état yi dafa mel na ñi ñu koy dénk ñaare dañ ko dul faral di dégg olof nag moo ko xas a mhm. olof moom moo ko tàmbali ni buur ku falu ñu ni buur mhm. te buur yàlla rek la dëgg la ba ko ceddo gi tuddee buur ba léegi mhm. ndof googu moo topp état <laughs> parce que ku falu jàpp nga ni buur nga <laughs> danga gën ki nga yilif moo tax nga falu wala da nga koo ëpp lii wala da nga koo ëpp lële fekk chef d'état mooy jaam mooy jaam bi gën a ndaw cim réew mm-hmm. yonent bi li muy nekk nekkub yonent mm-hmm. buñ masaan daje di wuti matt mm-hmm. kenn du ko ci ëppalew say buñ ko waxee mu ni xayru naasi ki ñu ki ñu teg ci boppu nit ñi ni moo yilif ñépp naw ko bu ko gisee foofa jàppal ni xaadimuhum moo ca gën a suufe xayru naas yi ki nit ñi bu fee bu génnee ñëpp tëb taxaw fu mu lu mu joxañ ñu dog ko mu ni leen du kooku mooy xayru naas yi ñu ni waaw mu ni na jàppe boppam nag ni moo leen gën a suufe ah, macha allah mais loolu bu ko buñ ko jàppe woon mhm. kon dañuy xam ni mhm. ay pal ay ndomboy tànk mhm. ak ay salaire booy fayeekook ay privilège yi nangam du la yitteel li lay yitteel mooy réew mi lu fa nit sori sori sori mhm. lu fa nit suufe suufe suufe mhm. sa loxo bu koy jàppale na fa agsi ca moom ca la mu soxla mhm. moo taxoon Seydina Omar wax ni benn mbaam bu fa kastalu woon ci yoonu Irak ba sëf ba daanu bu ëllëgee man la ko yàllay laaj ni ma lu tax euh, taliwuloo to yoon wa nooyaloo yoon wa ba mbaam mi fa kastal kon oustaz moo la dafa mel ni kon ñett yi nga waxoon si njaal benn wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ñu warlu ko doo nit ku nekk kuy dund waaw dafa mel ni état loolu lañ koy gën a xaare loolu lañ waaw mooy mooy su sécurité sécurité bi euh, kii bi nga waxoon ah. sécurité euh, alimentaire alimentaire sociale sociale sanitaire sanitaire moo ñett yooyu lañu lañu la ñu gën a xaare état parce que ku wérul doo doo tala waaw bu ñu fekkee ci ab bureau koo xam ne dafay gëmmentu di di xalambaay yi ñu ni ko la mu ni sa nangam mm-hmm. nangama ma dal ñu xool-xool ni amuñ fuñ ko mën a faje kon waaja feebarul bureau baay feebar mm-hmm. ah, te bureau bu bu feebaree moom ñëpp yëg ko benn waaye mën naa feebar sax faat waaye mais bureau moom bu feebaree ñëpp yëg ko mm-hmm. mooy ku talu la taxaw doo talu la lijjanti lijjanti keneen. effectivement kon wér yaram mooy li njëkk. te loolu ci sécurité. ci sécurité bi la bokk. état moo ko war a saytu moo ko war a saytu ba ndax nit ñi population bi. Mhm. war a saytu réew mi. Mhm. war a liggéey réew mi. Mhm. ndax ñoom tal nañ seen bopp. ba man koo liggéey. Ah, te ku wérul doo tal sa bopp. social bi tamit état état moo ko war a taxaw moo ko war a tax social bi tam nit. ki ki nga xam ne amul lu mu def. lu mu def jàng na ba fees. mën na métier sàngam man na sàngam. Mhm. mais amul fu mu ko defee. te du réew mee ko ñàkk. waaw bu jàdd yoon a tax. mënu ko surtout. mais Sénégal lu fi manqué. waaw kon daanaka mën nga wax ni lu am ci réew yi rek am na am na. te yooyu sax bokk na ci ah. yi poussé ñi ñi def ñaawtee fii. ñu amul werante ah. dañuy gis ni. Mhm. lii état waroon naa mën a tax ba ma jot ci man. Ah. ba tedd ci teral ci samay njaboot te defu ko mm-hmm. te capacité bi ko man mi ngi mi ngi ci man mm-hmm. hmm? defu ko ba pare nag ñu gis ni am na yeneen yu muy def yoo xam ne amul bopp amul geen du priorité mënoon mm-hmm. naa ñàkk te du wàññi dara réew waaw lu mën a ñàkk wàññi dara réew mi yow ñu fal la yow ca loola rek nga ne yow wàññi nga dara réew mi kon ah, kon bu yàggee yaay poussé yaay poussé nit ñi nag ñu ne nañ jël suñu àq suñu àq nañu jóg ñu ne tam def lu ñu man comme kenn joxuñu ko. kenn joxuñu te suñu àq la. kenn wutaluñu yoon wuñ ko defee <laughs> ah. macha allah ah loolu. loolu loolu moom wane ne état. waaw ni nga ko waxee léegi amul ku ko ku ëpp responsabilité. amul ku ko ci ëpp responsabilité. ci luy jur. waaw sécurité ci sécurité ci réew bu dee wér gu yaram gi. Ah. noonu. Mm-hmm. bu dee koom-koom gi. Mm-hmm. bu ko saytuwul séddale ko séddale bu bu jaar yoon. Mm-hmm. révolte dina am dina am. te bis bu révolte amee nag wallaay wallaay du yam ca moom mhm. ittaqoo fitnatan laa tusiibanna allaziina zalamu minkum xaassa macha allah beneen bi tamit oustaz foofu ñu gis ko ba tey muy ñu muy ci rôlu état mhm. te ñu gis ne it bokk na ci yi mën a indi mhm. sécurité ci dëkk mooy ñi ñi ñuy dénk ak moo xam lu ñu leen mënti dénk te ñu dénk leen comme ni nga ko waxee lu lu lu penc mi yëpp dëkk bi yëpp réew mi yëpp war a bokk ñu gis ñu cay def waaw naka su dul noonu. ñu bañ leen di leen lax. waaw te mooy kuñ si war a sanctionné ñu sanctionné waaw xam nga sanction yàlla mi bind nit moo ko indi. Mhm. saar bi njëkk a wàcc ci alquran menaces yi sanction yam a nga ca. Mhm. ndax yàlla bi mu waxee yonent bi ko jàngal. Mhm. bismi rabbika. allazi xalaq. xalaqal insaana min alaq. la mu ca tegaat ci gannaaw njàng mi. ak xam-xam bi xalaxal insaana min alaq mhm. kooku ni yàlla binde nit la xam-xam boobu beneen affaire la mhm. waaye mu teg ca nag ni jikko wa rabbukal akram mhm. yàlla buy wax ci boppam ay karim ak ay nangam nit lay jàngal yàlla du karim ak ay yàlla lu muy doyee karim boo amoon beneen moroomu yàllam sax ñuy <laughs> tabente waaye yàlla moom kay ku ne xam na ni ah <laughs> mu go la mu ca tegaat wa rabbuka la akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam mhm. la mu wax dafa ni la mu ca indi xoolal nag araayta allazi yanha abdan iza salla mhm. la mu ca teg mooy xoolal waa ji nga xam ni mhm. dama koo jox alal mu bew inna insaan la yatxa mu ngo inna al insana la yatxa ar ra'ahu sarna ni jox naa nit alal ba tay yi dafa ni daf koy investir ci luy jariñ ay mbokkam péncam moom mu bewe ko bew mooy lan mhm. ña ca war a jot duñ ca jot mhm. ña ko neex a cay jot mhm. ba pare nag te ña ko neex wóor na ko ni léegi wuññeente ci seen biir mënatu la am parce que sàcc bu mag bu bëggee feeñal bu ndaw ba bu sanctionné bu ndaw ba bu bu génnee feeñal ko ni man d'accord na sàcc naa montre waaye moom euh, abion la sàcc <laughs> ah. kon daal kon kon ah. kon kon ñàkk sanction oustaz. waaw ñàkk sanction. bokk na ci bokk na li koy waral. Ah. mooy ki war a sanctionné. Mhm. ni moom itam dañ koo war a sanctionné. <laughs> maa la ko wax de waaye da Omar defoon <laughs> Omar wóolu boppam nekk moo ëpp doole chef d'état yi parce que booba amirul muminin mu dem génn ca ganaaw kër ga tëdd ca keru garab geganu ci geganaay lu doy waar di nelaw ka waa ruum yebal mhm. délégation boobu ñëw ni anamu mhm. ñu ni ko ma ca gannaaw kër ga mhm. ñu defoon ni ci pale bu rëy lañ koy fekk mu ñëw ñu ni nee ñu ni kii mooy Omar tant que amirul muminin amirul muminin waa ji ñëw nuyu ko ni ko yaay Omar mu ni ko man la dem mu ni ko wallahi maandu moo tax nga ñemee tëdd nga ñemee tëdd wallaahi ndeysaan doxal justice bi nga doxal justice ci sa mm. état bii mm-hmm. moo tax nga ñemee beru fii tëdd te kenn fekku la fi di di fayu hmm? mais bu fekkente ni da ngaa def tooxidoo la mm. te yow yaa war a sanctionné ah. te ki ka ngay sanctionné xam na ni bu mu def bu ko gëpp def nga ko yow mais da ngay tag ay conco rek. te loolu oustaz bu ko defee ah. <laughs> loolu day yàq loolu day yàq day yàq penc. day yàq penc. Seydina Aboubacar lan la mm-hmm. waxoon. Mm-hmm. in ahsantu waaw. fa fa ayunuuni. fa ayunuuni. wa in asatu. ah fa xawimuuni fa xawimuuni. la Aboubacar waxoon. ah parce que loolu mu ni kat wul liitu. aleykum wa lastu bi ah, xayrikum wallaay. dañ maa dénk seen mbir de. Mm-hmm. waaye gën leen taxul. Mm-hmm. kon nag. Mm-hmm. ni ma amee droit wu ku jàdd ma teg la ci yoon. Mm. amee ngeen droit noonu ma bu ma jàddee ngeen teg ma ci yoon. ku def lu baax. ma félicité la. sant la yokkal la noonu ngeen amee droit yéen it bu ngeen gisee ma def lu baax. Mhm. ngeen encouragé ma. encouragé mhm. waaw. mais loolu mooy njiit waaye bu fekkee da ngaa yow di man maa yore yar bi rek. Mhm. léegi ko wax ma ni la ku boo bokkul ci sa anam ci sama sama gars yi la bokk. Ah. nga ne waaw kon teg yar bi na làqu fii ci gannaaw. <laughs> bokkul ci sama gaay indil leen ma bopp bi fii ma konk <laughs> ah waaye sëñ bi loolu bu yàggee sa bopp am na ku la yaram tiim ci sa bopp di wallaay ndeysaan <laughs> te bu la kongee dootoo jóg yow ah mu ngoog moo tax kon euh, nguur goo gis bu dul yàlla day geex wallaay dëgg <laughs> ku fi jaar rek am na ku fi jaaroon te jóge na fi mhm. mais ñi ëpp chance mhm. ci ñu yore nguur mooy ki nga xam ne dafa naan ay bu ma demee mhm. yàlla bu ma fi bàyyi way wu ñaaw macha allah mu waxtu wi moo ñu dab di jeex mais macha allah li ñu soxla woon lépp génn na ak itam sax façon bi nga ko génnee parce que dañ doon wut yal nañu yaakaar ne mën na nekk ay saafara ay solution ci yi ñu seetlu tey ci jamono muy ay agression yu bare ci penc mi bu ñëpp di ko jooytu ñu gisoon ne ñu ne kon loolu pour mu ñu mën ay saafara ñetti ñetti dimension lay dellu mm-hmm. dimension bu njëkk bi mooy bu famille bi parce que nit ñi ku nekk ci famille nga génn ñëw ci mbedd dimension bu ñaareel bi mooy bu ñu dajee ci mbedd mi lu ñuy tudde penc lan lañ leen ci xaare hmm. famille bi wax nga yar bi wax nga encadrement bi ñu war a encadrer mais hmm. yaa ngi ko tàmbalee sax sa tànn ga ñuy tànnante hmm. ñaar ñiy sos famille ba macha allah ci pénc mi itam feeñal nga ci yu ama am solo mooy wane penc mi dund bi ñu war a dund dund uxuwa dund tadaamun taawun su amee ci penc mën naa saafara lu bare bare bare ci ay ñaawteef wala ay yàqu-yàqu jikko mais bu ñu seetaanantee nag ñii di man ñii di tële ñii di am ñii di ñàkk ah, ah bu boobaa ne mën naa dem ba indi révolte bi nga wax sànq te mooy coowoo si diggante finc mi te bu boobaay du yem si boppu borom mais bi nga mujjee nag surtout mooy bu dawla bi ñi ñu dénk doxalinu at réew ñu xam ne ñu nga ko waxee léegi ñoom ñëpp dañoo war a amee philosophie bu Aboubacar bi nga sànq wax sànq yàlla dogal ngeen tànn ma ma jiitu mais du ngëneel kon nañu bokk soo leen gisee lu rafet ñu bokk ko jàppalante mais suñu naree jàdd yoon it ngeen tegaat ñu ci yoon kon état li mu war a def li mu war a fexe ba def ko mooy di nga wax sànq assurer d'abord sécurité ah, sociale bu nit ñi <laughs> société alimentaire bi uh-huh. Euh, sécurité alimentaire bi. Mhm. sécurité sociale bi. sanitaire ak sécurité sanitaire. Mhm. état fexe ba loolu mu warul ko mu assuré ko oh, ñiy dëkk ci ci ci réew mi. Mhm. su ko defee nag ba cay topp nag mooy mu fexe itam képp ku de ku ku wàcc ku def naka su dul noonu. ak ah. foo mën a bokk. xadd bi ñu teg ko ci sa kaw. Oh, ba ñëpp xam ne ku def oh. naka su dul noonu dañ lay teg xadd ci sa kaw. kon oustaz yaakaar naa ne macha allah léegi nag dañ lay bàyyi rek nga wax euh, sa kàddu yu mujj. incha allah ah, waaw ci bi ak tàggoowaale ñu. teg incha allah bi moom. <laughs> liñ ciy wax rek dénk suñu bopp. Uh-huh. jur yi. Uh-huh. dénk itam képp koo xam ne borom xam-xam nga. Uh-huh. xel mu rafet. foo mën na ne ci réew mi ngay liggéey ci wàllu sécurité bi. insécurité bi àgg na foo xam ni. ko seetaanee dana dem ba kenn ku ci nekk. la sëriñ Abdullah Mbacke waxoon ni. bu jàmm amul kenn ku ne loo nekkoon da nga ko bàyyi. ba jàmm am ba jàmm am nga soog ah, caa dellu. wallaay mhm. te ñu bàyyi par parloo bi. Mhm. xam nga réew mi. Mhm. ñaara ko séq. ñu yore nguur gi ak ñu yore diine ji. diine ji surtout. jaboot yi fi nekk ñëpp. ku ci dul njabootu ñii di njabootu ñële. njabootu ñële dëgg la. te ñu yore diine ji am nañ fi baat boo xam ne ñu yore nguur gi amuñ ko. foofa itam daf ci am yenn nag yoo xam ne ay par parloo daf ciy am mais sa njaboot mhm. bu defee loo xam ni dafay yàqal keneen mhm. artu ko mhm. wala yow ma bokk ak moom kilifa ngeen artu ko xamal ko nag ni ko kat koo yàqal sa bopp nga yàqal ndax bu ëllëgee moom itam mu yàqal la kon nañuy artonte njaboot yi. Mhm. bañ a par loo rek ba seetaan koo xam ne dañ ko war a sanctionné. Mhm. waaye fii la féete rek te li muy def fële la koy wax la koy jëme ñu làq ko làq ko. di ko dooleel di ko dooleel di ci suuf. waaw di ci waaw lu mu wax lu mu rëy rëy. Mhm. da gis koo xam ne wax na loo xam ne tey manoon naa taal Sénégal. waaye comme fii la bokk te ñoom foofa la ko waxee. pour ñoom lu lu mu garaaw garaaw rek. na na na duufal suñu wet suñu wàll. suñu duñu duñu xool yàqu-yàqu duñu xool yàqu-yàqu ba mu mën a jur mën a jur macha allah mu ngoog loolu <laughs> loolu loolu mi ngi mi ngi law ci senegal kon loolu la dañ ci war dañ ci war a dañ ci war a war man ko kër yëpp mhm. këru diine yi kenn ku ci njaboot ci fenn mhm. def loo warul la def mhm. te bokkul te këru diine googa sax sañ na laa artu sañ na laa kii tara du ko ci fekk waaye comme bu fekkee fii lu mu wax baax na boo jógee déet moom kay da nga koy contre day contre suma ne yooyu moo bëgg a rey réew moo bëgg a tas réew mi dëgg te gis nga yàlla mhm. boppam rek ko ko saf dëgg bu dajalee yooyu ba mu bari mhm. day boole ñëpp ñàkk <laughs> Cheikh Ahmad si Sy wax na ko mhm. dafa ni woon bis bu ñu boolee murit yi ak tiijaan yi ba ñu xeex xam nga lu tubaab yiy def lu ñu xas murit ak tiijaan yonent bi la ñuy xas ni njabootam a mel nii ah. macha allah ah. <laughs> moo tax kon foofu la sécurité bi war a gën a jëm. Mhm. bañ a boole tariixa yi. dëgg la bañ a fénqale tariixa yi bañ a parparloo ci tariixa yi. Mhm. bañ a lëjal nit ki parce que bokkul ak man rek tariixa. Mhm. dinaa teg loo xam ne boo waxee ma ni day contre sama tariixa. allah loolu boobu moo gën a garaaw sax daanaka yu bari wallaay wallaay te yooyu yëpp état état am na ci am na ci rôle pour pour pour taxaw ci macha allah mu ngoo waaye bu fekkee ni yow ku la wateel rek nga bëgg. <laughs> waaw booy boo mu tas réew mi waaye bu watee jotee na la wateel. ah moo tax yàlla it day ñëw ak mbiram. macha allah ah, ah, ah, jërëjëf oustaz rafet na wax dëgg yàlla. Mhm. ah yan kàddu ngay tàggoo nag. tàggoo bi mooy xanaa sant télévision bi. <laughs> ak ñu ñu may occasion wu. wallaay dëgg nuy wax loo xam ne ñoo ñañ koy waxal ñoo ci yem. ñoo ci yem dëgg parce que wax ji ñu fi wax yëpp. Mhm. génneewuñu ci suñu bopp. mën nañ ñu cee duut baaraam sax ni yow itam lii def nga ko lii def nga ko mhm. loolu nag kon occasion boobu ku la ko may mhm. nga mën a wax loo xam ni ñëpp ci euh, xëy na mhm. bu ko bu ko ñëpp jariñoowul itam dégg nañu ko rek waaw loolu wax dëgg yàlla yarukaay la télévision bi yarukaay la di ñaanal borom télé bi ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di leen jaajëfal yéen ñi ñu invité tey ba ñu mën a génne kàddu yi ñu fi génnee ba mu nekkaat sax njàng ci nun macha allah ngi leen di jërë jërëjëfal bu baax a baax. macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf macha allah Oustaz euh, Babacar ñu ngi lay jaa jëfal bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla mbokk yi defe naa ñëpp kontaan nañu ci tomb yi ñu bëggoon a waxtaanee ak Oustaz Babacar ni nga xamee ne noonu la ko abordé kon mbokk yi loolu lañu indi woon tey ci seen rubrique xew-xew ci seen pencum diine rubrique ba nga xamee ne mottali. mooy rubrique daara incha allah dinañ ci ànd ak sunu mbokk maam Khalifa Kane niñ ko daan àndee ak moom jamono bu jot su ko defee moom itam dina leen andil ci rubrique daara tomb bi nga xamee ne moom la leen ci war a andil incha allah. bismillahi arrahmani irrahim wa salla allahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tabaarakallah ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan itam sunu borom boo leen defal tawfiq di nuyu mboolem ñi nga xam niñ ci daara ji nekk ci fii ñu toog wala feneen ci biir daara ji ci yeneen di bànqaas di leen itam ñaanal yàlla sunu borom mot li nu mot li yéene borom élèves yi waaye mot liit yéene kilifa kilifay daara ji bu ñu defee lool nag ñu ngi koy wér ci mbokk mi nga xam ni sunu imaam la di sunu président te moo jiire sunu taxafiis bi ñu wax imaam Mouhamed Diaga yàlla jàppale ko jàppale ak njabootam di ko jaarale itam ci mboolem ñi koy liggéeyal te ànd moom ci liggéey bi di sàkku barke yàlla ko yàlla dolli ñu boole yooyu yëpp nag dénk ko borom daara yi te mooy Cheikh Seyd Mouhamadinil Moustapha Sy moo créé ay daaraam moo créé télévision moo moom ay taalibeem ak ña leen jur ak ña leen di toppatoo ñëpp yàlla bu leer yàlla ak ndimbalam di deñ ci moom bu ko defee nag nuñ ko xamee woon tey jii dañoo ñëw nag dellu si ci émission daara ñu am ci benn pàcc boo xam ni ku daara wax ab jàngu ku jàngu wax kuy jàng kuy jàngale ak koo xam ne dafay jàppale ñooñu Serigne Moustapha nag dimbali nañu ba yooyu yëpp mu amandoo ko benn yoon ci wenn waxtu ci benn programme donte ay daara yu yu bokkul fu ñu nekk la waaye ñëpp bokk nag bu ko defee ci loolu la ñuy la ñuy ndokkeel itam euh, télévision Al Mourchid wala Mourchid TV bi nga xam ne moom itam moo ko créé ni mu créé daara yi ñu ñëw tey pour jàppale tey ñoom ci liggéey bi tey jii ñu yoof Yoff cité Alia Diène ci al irshad ci tahfiz bi la nekk fu ñuy mokkale alxuraanul karim te ñu ko fi mokkal bari na dèjà bu ko defee nag ci tàmbalikaayu émission bi tey ñetti pàcc la émission bi di nekk danañu andi kàddu daara ji xaaru daara gi mooy xaddu yàlla alxuraanul karim la ñoom ñoo koy jàng ñu am ci ñenn tuuti rek ñu ko jàng ñu ubbee ko émission bi dañ cee tànnoon ci ñoom ku ñuy wax Baye Gora Fall Mouhamad Mbodj Xaadim Guèye Serigne Guèye ak Anta Lo ñooñu bu ñu jàngee ñooy waxee kàddu daara ji amaat koo xam ni bu li mu nuy wax mooy li daara ji am ci xalaat ci ni doxe ak na bëgg mu doxe na beneen yoon dana ko tënk mooy soxna Seynabou Faye mii toog ba ñu noppee ki loolu nag kiy jàngat dafay ubbil kiy wax royu waayu daara ji mu wax moom lan mooy daara nan lañu la jàppe daara moo xam dañuy jàngalu wala dañuy jàngale wala dañuy encadré wala dañuy toppatoo kooku lan moom moo ko war ci liggéey bi mu ñaaxaat bokk yëpp soññiwaat ñëpp taxaw bu ko defee loolu mooy doon jeexal kaayu émission bi tey jii ñu ngi ñaan sunu borom defal ñu tawfiq ñu bëgg a tàmbali incha allah taala kon dem ci kàddu daara ji Baye góora Fall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 والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعشوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم wala ci li nga xam ne mooy deuxième tomb bi rubrique bi moo di xalaat daara ji te loolu ci biir loolu da ciy nekk ni daara ji doxe ak li fi dox ak ni mu nekke ak nan la war a nekke foofu lañ toll soxna yaay daara soxna Seynabu fay moo na koy jox bisimilah soxna. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla taasuñ ñu ci barke alquraanu karim waa daara ji nag Aliya Diène la nekk cité Aliya Diène yoof foofu lañ nekk daara ji nag mooy al irshad daaray Serigne Moustapha la maanaam boroom daara moo taxawal daara waaw Serigne moom bu ne taxawal na daara wàcc na ndax ñoom liñ am yépp gannaaw yàlla daara moo leen ko jox kon bu taxawalee daara wàcc na fii nag mooy daaraam daara yépp moo leen moom nag waaye bii da cee raw mooy al irshad nekk cité Alia Diène ñu boole ñoog nag euh, Oustaz Diaga maanaam mooy yilif daara ji Oustaz Diaga mooy yilif daara ji am na ku mu toftal ci gannaaw muy Oustaz Lamine mbay ñun itam encadrement bi lañ yor maanaam ñooy ndeyu daara ji waaye am na ñu njaatige ki ñu booleel ñun mooy tonto Ahmed si Fall mooy sunu njaat yi donc daara ji noonu lay doxee maanaam lu nekk dafa am hiérarchie bu muy jaar Oustaz Diaga mooy kilifa gi waaye am na kum toflal si gannaaw tonto Ahmed mooy kilifa ñi yor yar bi maanaam ñi toppatoo xale yi loolu daal mooy li li tënku si présenté daara ji si côté boobu waaw daara ji moom alxuraan kese lay jàngale gannaaw yar alxuraan lay jàngale ba nga mokkal alxuraan ñu door laa yewwi am na ñu ñu fi jot a mokkal ba ñu yewwi leen nag internat la nag maanaam amul wàcc di ñibbi ñëppay internet boo mokkalee ñu door laa yewwi waaw daara ji nag ay ay pàcc la wala irshad book ay pàcc la fii mooy tax fiis bi mooy ñuy jàng alxuraan kese te amul wàcc ji bi maanaam dañoo internet am na ñeneen ñu ne si beneen wàll wi ñoo xam ne franco arabe la ñuy def foofa am na ñu fa internet am na ñu fay wàcc di ñibbi mais fii moom daara ji alxuraan rek la jàng te amul wàcc di ñibbi bu ñu mokkalee dañuy fexe ba réinsérer leen si franco arabe bi maanaam ku si mokkal alxuraan bu sa waajur préféré bàyyi la fi ñu bàyyi la fi ngay jàngi franco arabe di wàcc di ñëw. ba pare di nafaraale sa alxuraan ndax mu mën a fëtt ndax ñaara xale bu si mokkal buñ ko sàggane day fët am na ñoo xam ne seen wéju dañuy préféré bàyyi leen fii ñuy jàngi si franco bu di wàcc di ñëw di nafar alxuraan ji pour mu bañ a fëtt loolu moom am na fi waaw daara ji moom ay góor ak jigéen a fi nekk beruñu kalaasu góor a jigéen waaye si biir classe yi dañ koo organise maanaam si toogin wi boo duggee rek dangay gis góor ñi toogee nee jigéen ñi tooge nee waaye amul kalaasu góor ak jigéen maanaam dañoo boore classe yi ku si nekk classe ba ngay jàngi rek boo dee góor nee ngay tooge boo dee jigéen nee ngay tooge ñoom lañ ko organiser maanaam organisation bi daal si biir classe bi la oustaz moo koy organiser ber nii jigéen ñi ber nee góor ñi ndax jigéen ñi bariwuñu genn bari gi moo tax lu néew la si rek waaw fii moom juróom benn xalq la maanaam juróom benn la waaw fii moom heure bi benn la waaye dañuy def d'habitude ñu ngi yeewu cinq heures et quart waaye ñu ngi taxawal cinq et demi maanaam njàng mi cinq heures et demi lay commencé bu ñu yeewoo cinq et quart diggante bi ñuy waaj ka demi classe ak yooyu cinq heures et demi jot ñu tàmbali cinq et demi lañuy tàmbali di jàng ba sept bu sept jotee ñu julli buñ jullee dem sangu ji bu ñu sangoo ba pare ñu ndekki 9 ñu dellu classe bu ñu delloo classe 9h 1 la ñuy wàccaat bu ñu wàccee 1 diggante boobu foofu la ñuy julli tisbaar sieste fa añ fa 3h30 ñu delluwaat classe buñ jugee trois heures et demie dix-huit heures la ñuy wàcc ñu wàccee dix-huit heures diggante boobu foofu la ñuy goûter maanaam fa la ñuy njogonikoo buñ njogonikoo ba pare a fekk timis di waaju jot ñu julli timis delluwaat classe buñ delloo classe ba julli gee ba pare ñu wàcc ñu julli gee wàcc bu ñu wàccee diggante boobu foofu la ñuy reer boroosu fa dem tëddi ba fajarete ak jàmm ak salaam incha allah maanaam diggante boobu nekk classe yëpp nag fépp fu ñu fa julli fekke dañuy dagg njàng ma julli ba pare continuer ñenn rek ñoo dul yeewu fajar moo ñuy jàng ijji ñii ijji ñëpp duñ yeewu fajar ñoom 7 heures la ñuy yeewu bu ñu sangoo 9 heures la ñuy dugg classe ànd ak ànd ak ñeneen ñi. waaye ñoom fajar gi duñ jóg noonu daal la fay demee loolu mooy programme bi si tënk. waaw mooy li ñuy wax sànq si début bi rek maanaam classe bu nekk oustaz bi mooy responsable bi waaye oustaz yooyu yëpp dañ leen nas si benn buum am kuñ jux bam booba mooy oustaz Lamine Mbaye mi ñu tudd léegi moom mooy superviser liggéey bi lépp lu si am faay moo koy lijjanti mu fexe ba oustaz jaaga jot si bu ko defee ñu réglé ko fañ ko war a réglé doo la jàll si leneen. waaye classe bu nekk oustaz ba fa nekk mooy responsable ba bu amee lu ñu fa war a régler nag kilifa gañ dénk mbir mi moo koy regle ba mu jaar fa mu war a jaar ba lépp am solution noonu daal la fay demee. waaw sport nag daal nañ ko def ay jamono mais dañ demoon ba benn temps ñu arrêté ko ndax am problème mu moniteur fi mu toll daal lenn rek lañuy def mooy jékki ba toog weekend yi nii rek génn benn weekend yóbbu leen terrain ñu football yi ñëwaat. mais à part moom amul kii bu ñuy def fii moom am na infirmière maanaam xale bi bu yaramam tàngee wala dara du ko metti Aminta Diop la tudd foofu lañ koy yóbbu waaw tonton moo koy yóbbu saamin mu xool ko bu amee lu si war mu def ko noonu daal la fay def bu ko fajee ba mu tane ñu xam ne tane na bu amee ñetti fante tenewul nag bu fekkee dafa dépassé ay comme euh, ni mu mane ñu yóbbu ko hôpital noonu daal la fay demee waaye am na infirmière buy toppatoo xale yi yooyu moom daara joo dem fekk ko fa waaye li yonente wax sallallahu alayhi rek mu am solo innamal amalu bi niyaat maanaam bi nga gàddoo sa doom si loxo yóbbu ko daara ja yéene ba nga ca am rek la yàlla di fay yooyu am na fi am na xale yoo xam ne seen wéju dañ leen fee indi ndax dañuy wut ab kiis maanaam dañ koy ubbi rek bu amee fatu rek ñu gàddu ko yóbbu franco am nañ fi kaa yu baree bari xale yoo xam ne da si am yaakaar ba xam ne ñii am nañu avenir bu rëy si alxuraan seen wéjur yi gàddu leen yóbbu ndax nee nañ la bëggoon am naa ko loolu am na fi kaa te bu ñu sañoo nit wéjur yi dimbali ñu si parce que yow boo yoree sa doom te am na loo xam ne ki koy jàngal moo ko xam si moom bu la ko waxee rek nga bàyyi si xel maanaam bu ne ne xale bi am na sensu mokkal alxuraan nga bàyyi ko fu mu mokkal alxuraan ndax woowa yiw mënatoo koo am fenn si àdduna bi mais parfois nga jàngal xale ba am si moom yaakaar wee juróom gàddu ko yóbbu mu nekk yaakaar bu tas lool sax am na si ñoo xam ne nag comme ni ko waxee dañoo dañoo tëj seen kër ba kenn mënalu leen dara ñu ne nañ leen yëpp waa daara ja yooyu itam am na fi yooyu yëpp a ngi fi waaye ak li si man di am daal mooy li ñu wax sànq rek ku ne yéene bi nga am rek lala yàlla di fay ñuy ñaan wéyjur yi ñu bàyyi xale yi am sens al mokkal alxuraan ñu mokkal alxuraan ndax loolu mooy avenir loolu mooy tax mbir mi sax ndax ñi ñi am sens mokkal alxuraan bariwul kon bu la ko yàlla suturaalee nga am doom ju ko mën a mokkal rek nga bàyyi ko mu mokkal loolu daal mooy kàddu gi si wax. waa ñaara fii nag daje parents d'élèves yi ak ak kii géej naa am amoon na ay jamono nag mais géej na am. waaye ñaara ñoom ku si am loola naxari rek xam nga fi ngay jaar ba wax ko buñ fa jaaree ba wax ko nag ñi si war a jot daañ si jot ba faj ko waaye daje parents d'élèves yi ak ak kii bi direction bi gëj naa am mais li si am solo mooy parent bu si am loola naxari xam nga fi ngay jaar ba wax ko bu ko defee nag ñi ko war a saafara saafara ko waaw ñu tontu si question boobu rek xam nga jóge si daara daw moom dafa mel ni gàllaaju daara la ndax xale yi xale xamul lim bëgg li ka neex rek la xam ki kay teg ci yoon nag di ka defal nii defal ne defal ne dafa yaakaar ne kooku am noonam la moo tax lu ko sa génne lay wër parfois ñu am fi kaa nag boo xam ne xale bi day génne daw taxawaalu ji nga nekk daanaka soo ba jant soo di wër waaye yi ñu fi am yëpp yàlla def na si taw feex nag ba mu yàlla rafetal na ko waaye yooyu nag yéesaa ñu am si kaa xale boo xam ne day jékki rek daw kenn du xam fu maw yooyu parfois ñu am si mais daal ak lu si man di am ñu ngi sant yàlla bu baax. tabaarakallah yàlla na yàlla fay tontu boobu mu am solo daw mu gàllaaju daaral ndax bari na koo xam ne ba mu dewee ñetti dawkat rek a am ki ñu andi te bëgguñu ma toog fi ak ki ñu bëgg mu toog fi taw nanguwu fee toog. ak ki nga xam ne moom bëgg nañu mu toog fii waaye dañ ko jàppalewul wala dañu ko teetewul ba xelam mën a ba mën a ba mën a toog waaye daw ci daar na moom li bari bari bari nag aram na gars yi dégg ngeen dañ ko wax parent parents yëpp ngi dégg ko bu ko defee ñu ngi lay sant la gërëm soxna Seynabou Faye ñu jàll ci beneen bi nga xëye mooy tomb bu mujj bi maam Haaj Mouhamad Diaga yow mi njaati gël ji lan bëggool nga andil nu tomb bi ñuy tuddee royuwaay yi bu daara ji bu nee royuwaay daara nag mooy daara jépp ci alxuraan ci àddina bi koo xam ne bu taxawee ba su koo roy ci wàllu yorinu daara ci wàllu nekkinu daara ci wàllu liggéeyu daara ci wàllu jéem a jëmmal lépp lu daara soxla tey gi ñu am ci sunu almuhafizul kabir di sunu formateur ci alxuraan mu jox nu ay kàddu li nga xam ni noonu la daara war a doxe ak sëriñu daara ak jànkatu daara ak kuy jàngale daara ak ku sop daara mbaa ngay parent bu élève daara imaam bismillah tafadal yaa euh, imaamul akbar ñoo ngi am mbégte ak kontante ci ñëw ba nga xam ni ñëw ngeen ko ci sunu daara ji bi nga xam ni seen daara la yàlla ngee dogal bépp taalibe bañ fi mas di génnee ku mokkal yow examen ba yow yaa koy jiite ci kàttanu yàlla génnee nañ fi ñaar fukki xale yu mokkal yi nga xam ni yépp yow mi yaa ànd ak benn ekip ñëw ñu déglu leen ba xale yooyu ñu tinki leen ñu ñibbi tabaarakallaahu ah nun nag nun la ñu wax ni ñooy superviser daara ji waaye ñu am ci kilifa bi nga xam ni mooy directeur Irchad muy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sarr tabaarakallaahu moom moo élif daara ji yëpp te mu nekk koo xam ni ko bàyyi la xel taxfiz taxfiz xismu ci irshad moom nag mokkal rek xale yi mokkal rek moom mooy seen liggéey dëgg nag am na ci ña xam ni dañ leen di initier ci français looloot ñoo ngi ci sant yàlla eh, ministère bu l'éducation ci boppam ñoom ñoo am ay daara ya nga xam ne dañ leen tànn boole leen ci ñi nga xam ni dañ leen di encadrer ñoom ministère bi yàlla dogal taxfiis bi bokk ci kon fa tabarakallahu ginnaaw ba nga xamee ni ñoo ngi jox ziar borom daara ji muy cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy moom moo dénk irshad cheikh tabarakallahu cheikh am yey lool ci taxfiz dafay wax toujours ni irshad lu muy rëy rëy rëy rëy bu taxfiz réussir rek daanaka irshad réussir na waaye bu taxfiz esege nañu jàpp ni irsaat ci boppam moo échec tabaarakallah loolu nag ma ngi ci def lu rëy di ci encouragé jàngalekat yi tabaarakallah ah jàngalekat yi ñu seede lañu ñu taxaw lañu seen coordonnateur di al amin vraiment programme bañ leen dox lépp la ñu mën ña ngi ko ciy def euh, jàngalekat yi il faut que ñu defal leen motion mooy vraiment amuñu alxamis amuñu weekend ñoom daanaka doo xam ban bés la ñuy noppal jour yi ñu nopp noppali sax lañ koy jàngale waaw xam naa nag des fois dina xaw metti ci xale yi waaye daal pour ñu wax la rek ñoom itti bañ cee def uniquement pour ñu am réussite ci mission bañ leen dëkk xam nga programme dafa metti te ñoom dañ leen jox programme ni leen nangam ci nangam bi xale bi war na mokkal maximum bi mooy nangam loolu nag dafay xaw diis parce que nangam booba du ñu bëgg nga dépenser ko te ke mokkaluñu waaye itam jamono moo tëddee noonu parce que Serigne Cheikh mooy wax ne dañuy jëkkanteeg jamono nun bañ ñoo yóbbu daara suñuy way jur xalaatuñu leneen lu may du mokkalal fukki at la ñaar fukki at la ñaar fukki at ak juróom de seen yoon ñoom daal sédd nañ la daara ji pare nañ ca mais loolu léegi amatul léegi da ngay joxe daara sa doom ba pare bëgg mu def fa quelque année dem jàngi ji tubaab loolu moo am kooku nag mënul nekk ba pare te doo ko wutal programme ba nga xamee ne loolu danañ ko mën réussir. moo tax yaa imaam nun noo ngi jëlee juróomi at xale bi maximum bi ma ngi am ci mu am fi ñeenti at maximum bi mooy ñeenti at ñeenti yooyu nag bu matee su fekkee nun am nañu yaakaar ci xale bi ne mën na mokkal dañ koy wax yi paatam ah, at jum fi waroon def de mat na waaye kii bokk fi bàyyi quelques mois wala nangam dina mokkal bu ci d'accord ñu bàyyi ko fa mu mokkal bu ci d'accord nag dan kaan nag ma ngoog moom mu jël doomam yóbbu feneen kon yàllaa ngee dogal nag ña fi mokkal ñëpp ëpp at mooy ke ci def ko ñeenti at waaye ñetti at ak juróom benn weer ñetti at juróom ñaari weer ñetti at juróom ñetti weer ñoo fi mokkalanoo foofu la amagum. ko defee mbokk yi dañuy tegaat foofu baaraam rek xam naa di joxaat daje incha allah ay bés yeneen rek ah ñu ñëwaat rek ci yeneen tomb incha allah sunu rubrique settantal itam bu soobee yàlla dinañ ko dellu dina dellu sewaat incha allah beneen yoon ci beneen xalaat su ko defee mbokk yi. ñu ngi tàggoo ak yéen di sant di gërëm suñu techniciens yi ñu àndaloon. Mm-hmm. di ñaanal yàlla ni ko Oustaz Babacar waxee télé bi yàlla na ko yàlla gën a jëme kanam. yàlla dëgëral njiit bi ak ñi nga xamee ñoo fi nekk di liggéey yëpp yàlla mottali yéeneem ci réew mi ak ci àdduna bi. Mm-hmm. kon nag ba beneen yoon incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Oustaz jazakumullah ah, xayran. ah